salaamaaleykum bokki taalibe yëpp maa ngi leen di nuyu te di leen ziyaara di leen balu àq di ñaan rek mboolem koo xam ne yaa ngi bégg xaside yi te soppib xaside yi foo man na rek maa ngi lay ñaan nga teral sëñ am di mii sëñ am di mi nga xam ne bëtam yi da ko ëndaale jamono ba noppi sonn ci xaside yi ba mu nii foo ay mën ne maa ngi joxe numéro lu ko waaye mën a dimbalee rek nag koy dimbalee su ma sañoon ñi ñi ñi ñi nga xam ne ñu ngi gis ak seen i bët ne moom mi ngi mi ngi am xal bi mi ngi gis ci waaye ñi ngi gis seeni i bët duñ ko yóbbaaleel dara su ma sañoon mu am kër gu mucc ayib am daara joo xam ne ju mucc ayib lay doon ñi ñi ñi mu tollool li leen dal mu mën leen a jàppale ca loola di leen jàngal ndax ku mel noonu am na fii. koo xam ne dafa indiwaale ak ñàkk mën a wax waaye son nañ ca mu mokkal alxuraan ba fi ne ma ngay jàngal ñemel noonu ba ñuy mokkal alxuraan mu nit du ñàkk système bu mën a def ba mën a jàngal ñemel noonu bañ bañ mokkal nii ñu ko jàngalee ba mu mokkal alxuraan nii nii mu def xaside yi ne lay def alxuraan noonu la ci alxuraan waaye dama bëggul daal mboolem ñuy bégg xaside yi numéro baa ngi lu waaye am rek na ko ci def man nag ku ci def ma def ci ku ci deful ma def ci fas yéene ne ci ba kër muy am li mu bëgg. waaye nag jàpp naa ne lu ci waay def rek Sëñ Tuubaa danoo gis da nga yokk 77 868 02 36 868 02 36 lu waay am rek na ko ci dimbali te Sëñ Tuubaa rek tax dugalal koo ci. jërëjëf solli bi tas mi naa la xayril wara yaamam bi xol ba si waawu na wara wa alihi wa sahbihi wa qudulahu bi suurati almutaffifina suulahu wa yublahu bil inshiqaqi wal buruj wa suurati tariqi ma faaqa al uruj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 filaani wal ashaabi waasin qalami afu yaa ra'uuf salli abada wa salliman ala alladi sabqu bada sayidina muhammadin wal aali wa sahbihi fi lxaali wal maali بسورة القدر وحق البينة صل على نبي علاه بينة سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال يا مالك الملك بحق الزلزلة صل على من ليقعد النزلا بلا تزلزل ولا جن ولا ظلم وقد كفيتني تقولا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا رب ذا الجلال والإكرام صل بتسليم وباحترام على النبي ذي المزايا أحمد والآل والصحب وذا السعي حمدا بالعاديات وبحق القارعة صل على ذي السبق والمشارعة sayidina muhammadin ya muqsitu wala ali wa sahbi alladina aqsatu jaamiu ya ganiyu anta almugni salli bi taslimin ala almustagni bika bi alihi wa sahbihi alkiram wa qud lahu binnadri za xayra maram wa bittakaathuri wa haqqi lasri salli ala man juttali binnasri bihi bi gayri afatin wala kadar wa salliman alayhi mujri alqadar bi alihi wa sahbihi ya maniu ya xayra man ardahu abdun saniu ya man lahu ismu faailin min addarar wa qad kafaytani aladha والهوم والغرر صل بتسليم بحق الهمزة يا من كفانيها ولفظ الهمزة سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا معطي النور بلا أفول صل بتسليم بحق الفيل على النبي والرسول أحمد والآل والصحب وأمر أحمد بحق ما أنزلت في قريش من سورة صل على القريش سيدنا محمد وسلم والآل والصحب وكل سلما